soo bi ñu est-ce bala dañ naan auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ban sant yàlla julli jeune tamit sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu sama sëriñ sëñ Asek borom ndigal di ñaan senegal yàlla na fi jàmm yàgg ak ak di nuyu sama xalifa général maam Cheikh Matia Yàlla yàlla na yàlla sama xalifa général Bab yàlla ko yàlla yóbbu àjjana Baye Asek yàlla yàlla oofal yéen bi ak bépp kilifa diine bu mu fekk ñi jiitu yàlla yàlla yóbbu àjjana yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def maa ngi nuyu sama yaay Waré Sarr bu baax comme ni ma koy defee di nuyu sama grand frère sama homme de confiance sama l'homme de vie nas di nuyu famille Waré Sarr bi yëpp di nuyu sama grand mambay Paris suma benn boy Bira Bira NBA mu njaay bu guy gi Thiama Adama Yaade Fall képp koo xam ne daal yaa ngi kër Waré Sarr maa lay nuyu bu baax a baax a baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu tamit suma papa suma yaay. nuyu sama xalifa général papa muy Modou nuyu suma rakk Babacar nuyu ñi xam ne ñoo nekk suma kër Bolo naa ak ñi xam ne vraiment Mara suma sëfër ak ñi xam ne vraiment chaque jour ñu ñëw bokk di toog di waxtaan di jiital ci nuyoo bi suma grand frère suma papa suma lépp ah Père di ko nuyu di nuyu bu baax soxnaam Zeyna di nuyu Marie Louise di nuyu jëkkëram Maurice sama pëlsoo bi abu gannaaw Lamine Italie Espagne moom nga xam ne day def fépp di bu baax ak beneen Lamine bi ak Lamine ñas fa ñas Omar Der Mounas ak Adjana Paulo ñu ngi koy nuyu bu baax ak booy ñoom Paulo yëpp ñoom Ali ñi xam ni vraiment ñooy nekk ci Paulo yëpp su ma joxee Paulo rek nuyu naa ñëpp nuyu sama doom petit suma rek nuyu ñi xam ne vraiment ñëpp ñoo toog di jàppale guy guddi ak bëccëg suma ma limee damay juum koñ bi bàyyiwuma kenn guy gi di nuyu waa dawal ko sareet yi waa pip pip ku ci mel ni Demba Ama ak ñi mu àndal ñoom baj guy ñëpp rek ñëpp ak ñu fi nuyu ñëpp ci question yi lii dafa am solo dama bàyyi lépp ñu bàyyi lépp jàppale ma guddi ak bëccëg suba ngoon kon faaw mu nuyu leen di nuyu ñu xam ne tamit vraiment ñoo nekk eh, eh, eh, kii euh, États-Unis Abdou Medina Laye Ndiaye Mama Mati Bo sama kosu Ndoy Cuus Abdou Medina Amital bàyyi ma kenn duyu suma benn grand frère kenn la ci man jibisi la di ko nuyu baax di nuyu Awa Séeréem di nuyu di Xaarim ak sëñ Saliou ak Malick mi nga xam ne nii mooy gore jibisi depuis Suisse ak jabaat jibisi yëpp eh, ñu dem trois tours bi léegi guy gi ñaanal guy gi guy gi ñu ngi nuyu ñëpp rek waaye guy gi dañ la dégg nga ne rëg-rëg dafa dof lan moo tax nga ne Reug Reug dafa dof. maa ngi ñaanal suma papa Mor Faram yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana bàyyi ba la combat bi ba ans am taxee ba tey man waa ak école Lille Mor Faram yëpp président écurie Paris la Djili Wade secrétaire trésorier xaw ma secrétaire ñu koy nuyu Djili Wade Maawo Maawo Ngay Loum Salsari Gandi eh, Gandi Kirista ñu koy nuyu baax njaago bu tuub la di waa nuyu ñu xam ne sama mbokk mbër fi ñëw ku ci mel ni Alioune Marle suma rakk ñoom Jackson ñoom Thiaw ñoom uh, ñoom ama seen senior noonu du ma leen nuyu ci reñ bokk mbaytin diwaan am lycée su ma limee damay juum ñi fi ñëw ñi fi ñëw ñëpp bàyyi ma kenn tokoro ah bàyyi ma kenn ngeen comprendre am su ma limee damay juum waa kili mor fanam bàyyi ma kenn suma ma xol ko tubee ñoom ngala bàyyi ma kenn ñoom mor fanam su ma la nee tey su ma la nee tey suma xol dafa sedd dafa sedd ñëpp laa gis. Baye Balla man su pas droit erreur aw ma droit def erreur xaw ma dégg nga maam déet ñëpp ma bëgg man. wallahi ki may bëreel sax dafa ma bëgg aw ma noonu xaw ma tax aw ma noonu ñëpp laa yéene jàmm rek rek dama koy lan moo tax nga dafa dof lan moo tax nga ne rek dafa dof maa ngi nuyu xarit. Kéba Kanté. Kéba Kanté nit ku baax. Kéba Kanté bi yëpp xam ngeen ne Kéba ku baax la. papaam Cheikh Kanté maa koy nuyu ay millions yu bële la débloqué envoyé ma. ba tey tontu sama question. maa ngi koy nuyu Cheikh Kanté Kéba Kanté doomu Kéba Kanté maa lay. ba tey tontu sama question. lu tax nga ni Reug Reug dafa dof. xam nga lu tax ma ne Reug Reug dafa dof. doo fekk dof bu mel ni guy gi ñëpp di ko tekki mbër booy bu ñu mën. mu jëlee ci kàddu Seydina Mohamed defal la bagage fere na la loolu ma tax a jël combat bi. ma wàcc Sénégal def 135 kilos bay jug bay jub 140 kilos yi na ma def ëpp di ko wàññi ba am kon bëgg naa combat waaye Reug Reug nee na du may benn mag dara ndax Reug Reug seetaan nga combat ak Elton Reug Reug seetaan nga combat ak Gris bi mu ñëwee ci lutte avec frappe ba léegi amul kenn ku ko freiné lan moo tax nga ci rëg rëg waaye yow mag gi day magu dara mag gi mooy du magu dara dañuy wax rek. lan la xanaa da ngaa ñemewul la seetaan nga combat am ak Elton seetaan nga ak combat am ak Gris 2. ba léegi répondre xam nga làmb ju jot 3 ans. la. làmb joo xam ne bay baa la bay baa la làmb joo xam ne 3 ans la ñun ñëpp kenn ku ne dara sa ni métti. bu desee 4 jours daa jar a waxat ci lu ci des c'est présenté jëf rek moo des incha allah. waaw waaw mais guy gi ki nga xamante ne mooy rek rek. Hmm. dañ ko dégg micro moom lu mu wax. Hmm. si mu xeex. Hmm. ñu ni ko yaa dàq xeex guy gi mu ni waaw. mu ni biir làmb ak biti lamb moo la dàq xeex ngay tontu si loolu. bu doon dañoo jiitu ci mbedd man ak moom caméra nekku fa dara nekku fa nu ma neex laa koy def waaye nag léegi réseaux sociaux yi <coughs> dañoo bari ba ku rek. lu la neex wax waaye yàggatul démarche ma ñi ñi ñi ne woon ñëpp dañ may duma yaakaar naa <laughs> yaakaar naa ko de. mais dama dégg nga ni. waaw. Léone 2012. moom nga ni si combat bi lu waral nga wax. moo raw ki may dajal nawlawu ma respecté wu ma tegul ne nit laa te bu xamoon maay kan dina jël dissociation bu yàgg bu xamoon maay kan dina jël kiyam waaw waaw. kon su ma demoon ba mënuma affronter Reug Reug yóbbu ma samay supporter yóbbu ma koñ bii ma dëkk koñ bi ma dëkk kuy nooyee làmb fi nga bokk fii te bala nga ko xam incha allah nga ñëw boo ñëwee di nga gis lu yéeme lu leer nag laa lay wax kon yóbbu ma leen bay ñëw di dem di leen nax naan leen lii ak lii trois ans laa def di jàng xeex lu ma am xeex moom ma ko gënal man dama mën a xeex mais wane wu ma ko xam nga kañ lañ ko wane nee na mënu ma xeex na maam mu ñëw ci man su maamee ñëw ci man ñu longu ko mu muñu bi Fadel toog nañ di seetaan match Sénégal man ak yow mu ni dafa am def ci loxo yi man ko yàlla na génn ci kombaa bi man li ma def sama loxo du ma ni na génn ci combat bi xam nga lu may ñaan mu mu dekk naa sama xeex su ko defee ay mbokkam nangu ko ñu ñibbi. waaw man sama combat yi ma jox favori yëpp yàlla na demee noonu waaye sunu papa Mbaye Gueye daa ko bu am solo ak Boy Bambara mu ne guy gi kenn mënu koo pronostiqué papa papa Mbaye Gueye yàlla na ko yóbbu àjjana mu ne guy gi kenn mënu koo pronostiqué Boy Bambara tamit maag Mbaye Diouf ñuy bëree mu ne maag bëre laa ma bëre daan mu ne guy gi bàyyi ñoo bàyyi ko ci làmb kenn mënu koo pronostiqué sama papa moo faram damay entraîné ba pare mu woo ma ñëw mu ni man dama la conseillé nekkal ci état rek te kooku il est champion d'Afrique champion du monde champion de Guédiawaye kon loolu dañ koy bàyyi xel bu baax te dañ koy bëriwaale. kuy gi kuy gi dama am benn question. <coughs> question bi <coughs> ñu dem beneen beneen question ah, ñu dégluwaat dafa mel ni si bataille psychologique bi la est-ce que doo wàcc. non c'est très bonne question c'est très bonne question. la parole. très bonne question. Père Mbow. nga lu solo. dama def keroog sorti jooy sama xol moo tooy ma kenn xool kenn ku ne ma ne doggule naa sax néew jooyu ma. sama papa Mor Fadam mii man ak doomam ñoo ko sant ma dugal ko ci bàmmeel mu jël sama tànk roc bi te jooyu te am na lu def ci man kon xamal bu ma jooy keroog am na lu tax mais la ma jooy moom yàlla bum ko dal noo xaaral rek yàlla bu mu ko loolu sama gannaaw nee na ma liiru jaan mii bu ci waxaate du ci wax man man damaa dégg ndigal du ma ci wax mais dama ne li nga wax laa lay tontu yow sama diggante ak Balla Gaye su ma diggante moom su amee benn loo xam ne sama xol jàppal naa ko yàlla bu ma daan combat bi yàlla bu ma daan xam nga bi mooy suma àdduna ci làmb yàlla bu ma daan combat bi barke alxuraanu karim nekk naa fu mu nekk moom ak Sa Thiès muy werante ci làmb ji bay nar a jàppante kooku di ma wax ay qualité yoo xam ne yegg suul ci man ne ni nga koy daane fii moo toggee sa nekk sax tibli boo xëy ñëw tibli nga neel beneen bi ma wax ne am nañu jàppee seen bopp kilifa mu bëgg a dox sama diggante Guédiawaye ak diggante Balla Gaye déw ba tey socialistique naan psychologique naan naan euh, euh, nekk Guédiawaye naan mbëri dañ xeex kon su nee mbër mi ñëpp lañu dem ci Balla Gaye neen waa benn ma génn leeral ko ma ne ko mbër su ma nee mbër yàlla na yow yàlla nga ma daan fi du ma mbër mais tax ma jooy maa ko xam kilifa nga wax Balla Gaye daf na émission jooy jooyati jooyati jooyati tax ma jooy maa ko mais jooyu kenn ku ne ko moom mais lu tax doo jooy moom dee jooy naan ma jooyu gëmu ko mais kenn du ko def naan jooyu li ma dal yéen ma ko yàlla bu ko dal ba ma jooy yàlla bu ko dal man du ma am bataille cycliste di woote wàllu nee na may woote wàllu ñaata combat laa fi bëri wéet billaahi ma dem stade yàlla may ma ndam kon du man sotti Amary Ndack laa sama maam diineem deret ak i bal la ko jëndee man sëtam laa bis bu ma ruuxee ba ba ba ba ma tànk. nga fi reeru bari. boo ma juróom reeru bari. Eh, combat bi dafa am ku la digoon 5 millions ne la boo ko jëlee. waaw combat bi dafa am ku la digoon 5 millions. alors ah, loolu grand non dama ne non defal ndànk. liiru defal ndànk. combat bi biñ ko bëggee taxawal yàgg na. mais dañu dégg ne da bañoon jël combat jubóowul ak jubóowul ak promoteur bi. am ku la woo. ne la boo jëlee combat bi naa la jox 5 millions. jox na la 5 millions yi wala. maa leen di yëpp di leen gërëm. di leen sant moom waru cee wax loolu man maa ciy wax. Ah. comprendre nga moom champion la def na fi lu ne ndaanaan la képp na fi ay réeru jàmbur ba tey combat bi dafa métti gis nga rek nag su pourfé wul lool guy gi du rek moom ndax guy gi moo ko daw ci li guy gi fayeeku rek fayeekoo bu ko comprendre nga ñuy wax combat bi da ko dox comprendre nga léegi après juróom la promoteur bi mu am lu dox seen diggante ak moom mooy 5 millions dox seen diggante ak moom Malick Gakou ne ko jëlal combat bi naa la jox 5 millions te Malick Gakou kilifa la biir Guédiawaye fekkente da ngaa bëgg ñu naw la ñu respecté la da ngay sàmm sa kàddu 5 millions yooyu mu ko digoon nag ko koy jox combat bi dafa yàgg dafa metti te làmb dafa metti li ma koy wax na ko jox 5 millions yi na ko jox bis bu ko joxul nag bu baax na ko jox la ci moom doomu géejewaay la na ko jox na ko làmb daa metti làmb daa metti waaw waaw waaw ñu ñëw ci benn question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 képp kuy nekk waa képp ku nekk taaliba Seexu Canaba foo nekk nuyu naa la maa ngi nuyu waa Canaba nag bu baax a baax a mag ndaw ñëpp bàyyi ma kenn. tontu ci question ji li wasaare. non ñun xamul na ma ci tontu euh, Reug Reug xamul bataille psychologique Reug Reug il est fou man il est ñaari fou lañ daje. ñaari fou dañuy daje amul bataille psychologique amul ñun xamuñu loolu sax mënuñu ko wax sax tur bi mënuñu ko wax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 dañoo commencé commencé ci Aziz Ndiaye ak Masata ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw Baara Gueye Baara ak euh, euh, Baara Gueye waaw mais kil kiling owel Baara Gueye bu maire yëmbal suma suma frère la suma deret la avant dama xaalis bari ndeysaan ñëw parce que moom suma deret la yaa ngi dégg ci laa dem ci Pam Mama jóge ci Pam dem ci Sila jóge ci Sila ñëw Kër Mor Faram jóge Kër Mor Faram ñëw ci sëñ Ablaye Diop borom xaas fekk ñu samp ko bitel provision man ko dindil prévision bi ñu jël la ñu dindi prévision bi jël ko ma jigo fa dem sama kër turandoo fi ma jàngee métier dem ci sila dafa naa loolu rek la dem ci Balla jóge ci Balla ndeysaan euh, Diallo doomu mi tooñ naan bi ngay jubal def ci mën nga waroon jaar ma ne ko Diallo def ma caravane dañ maa fëgg rek ne ma faaw nga seet say nit ma taxaw xamu fa laa doon dem noonu la mais mais kenn ko xam suma waaye lépp lu fi nekk éclairage éclairage nii ci dialogue doomu dëkk ji. woote bii moom woote bii moom mosoo koo woote. Ah. xaw ma da ngaa jaaxle xaw ma. Baye Balla Baye Balla jaaxle ma de. Baye Balla Baye Balla Baye Balla. barke Mouhamed combat bi. xool wallaahi barke alxuraan karim. billaahi wallaahi watta. waaw wuy ma noonu dëgg la li laa la wax léegi firnde gaa ngi nii liiru du xulal kenn ku doomu géejawaay gëm dama ni la dama ni la ni may newee si combat bi nas nas day ñëw man nas day toog man. farma yaa may xulli la ma xeel nas day nas day ñëw ak man. nas day toog naa yow. ni nga tranquille ci combat bi ma ne ma jëlee avance de rek ma bàyyi bëre rek rek damay ñaan yàlla li mu doon indil ñeneen ñi mu indil ma ko.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 dina la romb ñoo lay jël encadré ba ngeen ñibbi seen kër yaa ngi dégg